ginnaaw bi ki njiitum réew bi di président Macky Sall defee lii di discours bi ñu faral di amal si njeexantalu at bi teg ci nag ab conférence de presse demoon nañu tàllal suñu micro ñii di askan wi ngir ñu wax ci seen xalaat. waaw discours bi moom maanaam comme yow comme ni nga waxee noonu problème troisième mandat loolu mën naa cee bañ a sori moom waaw kooku wax dëgg comme ci wax dëgg man mën naa cee gën mën naa cee bañ sori lool lool parce que comme mi ngi wax. li muy waxee am ñu am gisee ne am ñu gisee ne man moom fi ma gisee rek fi may mën a waxee dañuy bàyyi ba egg ci parce que man eggaguma ci comme eggaguñ foofa nag wax dëgg loolu lu ma ci soreegul daal nan dem ba ci kanam. point yi daal point transport bi kon ci laa yëngu ñor na ma lool lool transport bi moom mi ngi ciy def loxoom mais nag des na waaw transport bi des na il foog mu jëm ci góorgóorluwaat bu baax daal. parce que ban wàll mooy tali bi tali bi. son nañ tali bi tali gaa mi ngi defar mais nag am na tali yoo xam ni baaxul en même temps am na tamit maanaam suñ mbokki takki deri les fois ñuy daje ci kaw tali bi jàppante baaye bi te yooyu tamit il faut mu war ci war ko jubbantiwaat bu baax carrément nag mi ngi def effort wax dëgg yàlla mi ngi def effort waaye nag war na cee mën a góorgóorlu daal bu baax nga ci kanam. waaw xam nga comme li ma la wax noonu rek nee naa la troisième mandat bi moom man mënaguma cee sori mënuma leen ne ne nii. da koy wut li wala du ko wut comme moom carrément waxagu ci lu leer man tamit waruma cee waru mënuma cee wax lu leer daal parce que il faut ma bàyyi daal bañ egg caag daal ñaan yàlla ci bañ fekk ko ci kattanu yàlla incha allah. si biir kàddu yi nag ñenn ñi gis ne rek li tax kii di président Macky Sall indiwul benn leeral ci lii di troisième mandat bi dañoo jàpp ne rek parewul benn yoon pour céder li nga xam ne moo di fauteuil présidentiel bi jàngat bi ma ci gënal nii moom mooy comme comme ni mu waxee ci affaire u troisième mandat bi moom loolu moom li mu wax noonu la parce que bu fekkonte ne nii da cee wax réew mi ñu mu àndal kon kenn dutul liggéey waaw bu fekkante ne nag ni mu ci waxee moom noonu la man kontaan naa ci ni mu ci waxee parce que Sénégal dafa toll foo xam ne nii liggéey moo nu war mais kenn warul nekk fii di wax loo xam ne nii tegul ci maanaam nit ñi nañ dem liggéey. réew mi mën a dox ku mu leen mën a boo liggéeyee dimbali président quoi mais nga nekk ci mbedd mi di wax di wax si président bi amul njëriñ nit ñi dañ dem liggéey non beneen mandat moom xalaat naa ne moom loolu man si sama gis-gis li ma gisal li mu waxee noonu beneen mandat bi du du du dem moom parce que bu demee du loo xam ne nii du luy baax si moom la quoi du am way point bi moom point bi moom point bi moom gën a mën a bi may gën a wax moom mooy bay mbay mi réew mi moom bu fekkee na ni bëgg na mu gën a dox mbay mi si la si la état bi war a jublu waaw bo point boobu moom la gën a war a mën a doxal am réew su fekkente ne nii dem na ba nga xam ne nii mbay mi doxul réew mi du mën a dox parce que baykat yi il faut nu soxal soxali leen ñu mën a dem mais milliards yi nii wax ci réew mi yëpp nan nan investir baykat yi defal leen ay forage boobaa ni ñi dinañ dem liggéey mais nii da ngay da ngay wax da ngay nekk ci kaw nekk fii si temps si fii Dakar waxoo ci problème mu kii bi problème mu mbay mi doxaloo ci defoo ci dara réew mi du dox mais président li mu gën a mën a lii na soxali mbay ma pare réew mi du dox waaw. waaw man sama gis-gis su ma sañoon bu paree mandat bi. moom moo arrêté quoi mu jox keneen parce que sinon bu ne day day day kiyaat deuxième euh, eh, troisième mandat day indi coow te ñi ñi ñu bëri la population foofu lañ koy xaaree bu ne day porté waat volontaire pour troisième mandat bi day indi cow te dëkk bi mun na am mu jaxasoo te loolu jaru ko waaw man su ma sañoon bu paree mandat bi deuxième bi rek nag bon xam bi en en fait. bu mu ko doon eh, kii fekk kiiwu ma suivre ma ko waaw suivre ma ko dama jàppoon quoi bon foofu moom mënu si commenter comme nee ne moom du si wax bon bon xëy na bon ñii am nga xam nga ku nekk ak xalaatu am na ñoo xamante ne dañuy dinañu ne bon kii troisième mandat lay kat am na ñoo xamante ne moom dinañu ne non non non bu paree dina ñëw mais comme moom xalaatoom la bon mënu ma si commenter ndaa eh, voilà loolu mais man sama gis-gis laa wax su ma sañoon bu paree mandaawam bi mu dem mu séddee keneen loolu loolu laa loolu doon wax sànq ma ne man sama gis-gis bo bu paree manda bi mu dem parce que bu naree euh, kii troisième manda day indi cow xam nga day indi coow popula euh, bo dëkk bi mun na jaxasoo te jaru ko quoi parce que ñu bëri loolu la ñuy nekk di xaar bu nee day am troisième mandat rek. day am soulèvement te loolu jaru ko mais man pour mo encore ma ñëwaat si monnaie bi bu ngay laajte noonu moom monnaie bi moom mooy suis pour d' accord naa si ñu am suñu monnaie bopp Afrique parce que vraiment lu ñu may tubaab yi tamit dafa bëri trop quoi. ah éco bi éco bi du pour euh, ñun euh, kii africain bon loolu mooy nag problème bi nag loolu mooy problème bi parce que ñun moom loolu laa wax ma ne xam nga dañoo bàyyi tubaab yi lu ne tubaab yi ñoo ñu koy euh, kiyal te loolu moom waroon nañu weesu loolu quoi waroon nañu romb foofu waaw. en fait euh, man c'est man politique man bon man soow ma si trop mais aussi tam des fois dinaa siy déglu bon di si waxtaan rek ak quelques samay xarit bon parce que Macky Sall aussi bu ne comme euh, message tural kii bi mooy euh, nation bu mu kii nii pour gars yi bëgg xam pour au moins mu leeralal leen ndax moom day am troisième mandat wala du am mandat mais le fait que moom mu ne moom. du si tontu du si wax bon man si benn côté d'après li ma dégg tuuti xëy na peut-être day bañ ñi nga xam ne ñoo nekk si ginnaawam bon comme au temps de Ablaye Wade na way ñun fu mu toll nii benn mandat bi moo ñu jeexal kii moo des kii maintenant on va foutre le bordel xam nga commencé lekk lekk suñu xaalis bon xëy na peut moom si bon si lancé boobu moom mun naa ne peut mii mais aussi moom bu nekkee suñu président. yoon la aussi ñun bu ñu ko laajee kii kii yoon la mu wax ñu parce que même bu nekkee moom day dem troisième mandat moom mënul fal boppam donc peuple bi ñoo koy fal donc dans ce man man man man moom man foofu laa xamee man foofu daal laa ñaawee njort bon si kii yëpp attitude am quoi parce que xam nga kii bu nekkee un responsable quand même ki nit ñi bu ñu toogee depuis bi mu amee six xaw ma cinq mois gars yi commencé di du teewul day dem wala du dem. au moins moom bu dee wóolu na boppam moom mun na ne na ah man maa waxoon ne deux man deux laay def su ko defee mu leer si bopp ñëpp su ko defee opposants yi aussi tam bu nekkee am na keneen koo xam ne mi ngi ñëw ah kooku dina mën a placé wu mais xam nga mais actuellement Sénégal fii c'est que fu mu toll nii loolu mooy problème ah non ah, mais non mais si que même c'est même moom sax mais mais Sénégal nekkul dynastie parce que nekkul ne man su ma toogee sama mbokk wala sama sama oncle wala kii wala sama jeune frère lay préparé mu ñëw parce du moom moo koy fal ñun sénégalais yi ñun ñooy fal donc parce que moom li muy def xëy na peut-être kii jël na leçon si Ablaye Wade mi nga xam ne bon je sais pas parce que gars yi dañuy waxoon ne moom doom la doon tracé pour mu ñëw après xam nga ab kii par la mu am soulèvement mooy ñëw fu mu toll parce que loolu moo tax mu dem yoonam donc Macky Sall bu su muusee aussi même bu nekkee mi ngi préparé xam aussi waru ko mun a fësal ba mu fës ba nga xam ne fu mu toll mun na ko yàqal lu bëri parce que parce que nga nekk président deux mandats nga dem. mais gars dañ ko soxla pour ay kii ay consultance wala leneen leneen parce que Abdou Diouf jaar na fi def fi 40 ans mais Abdou Diouf mën naa def fi dara mais au moins boo xoolee partout dans le monde fu mu toll ñëpp a koy solicité parce que li muy bàyyi la xam nga nit ki boo am nikki boo demee ba toll si benn moom da ngay am ngor nga xam ne yow noo lekk lépp boo demee dangay bàyyi sa moroom yi ñu ñëw parce que dëkk loolu koy tabax yow boo defee benn da ngay sa morom mu ñëw def teg beneen keneen ñëw teg beneen keneen ñëw teg beneen parce que man dama man dama gis na peut-être c'est loolu mooy tax dëkk bi ñun suñu Sénégal mu développé mais mais bu ñu bëggee ku nekk tey di wane ne man maa moom parce que fii amul benn bu mën a développé Sénégal ñun ñi soldat ci soldat lambda yi sax ñun fu mu toll nii ñun ñun ñun suñu côté comme man par exemple man fi nga xam ne maa ngi nekk foofu kii di liggéey mais am na yoo xam ne man sama dool du loolu mais am na yoo xam ne man dama ñëw def ko parce que xëy na dama bëggul man si li ma nekk au moins ma gis sama bopp nga su ma fa jógee. nañ xam ne kii kat am na lu mu fa nekkee woon. ah bon sénégalais moom fii moom fii fii moom ñëpp xam nañu Sénégal bon man moom per waaw man moom bu dee man personnellement man moom du ma ko accepté waaw man dama ko déglu sax ba koy votel parce que moom moo ne moom deux mandats la am gars yi di xam nga gars yi di ne oui parce que parce que mandat bi jàll ñaata la sept ans donc c'est que moom day référé ko mandat boobu bokk si donc mooy mandat mu diggu nii ak ak ak bii di ñëw mais fii moom de toute façon fu mu toll Sénégal ñun dépassé nañu léegi ay président trois deux mandats ngay ñëw def soit sax nga def benn sa nga dem sa TV lii lañ leen indiloon tey ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon ci yeneen i thèmes. nous en sommes à la fois les héritiers et les gardiens parce que cette paix est un legs que nous ont laissé les générations passées un legs qu'il nous faut entretenir et transmettre aux générations futures. C'est dans cet esprit, mes chers compatriotes, que je vous adresse mes vœux. Vœux de paix, d'abord, de bonne santé, de bien-être et de réussite, ensuite. Et avec vous, je souhaite que la paix et la sécurité continuent de régner sur notre cher pays, afin qu'il reste toujours paisible et stable, et en marche vers un destin radieux. Bonsoir et devenez.